Sëriñ Tuuba ñu yàgg fi lool te léegi incha allah bu mu taxaw lu bëgg a liggéeyal Sëriñ Tuuba yàlla na ko liggéey ci sagoom Sëriñ Abbas Mbacke ñoom lépp lu mu bëgg a liggéeyal borom daal ci yàlla na ko liggéey ci sagoom euh, kon daal euh, mbokk yi mbégte gi nii tey euh, ba ñu ñëw tey ni Sëriñ Tuuba ñëw na ci dëkk bi kooku ndeysaan Sëriñ Bassirou Anta Niang moom borom daaru moo ci moo egsi noonu di nuyu euh, sëriñ bi lool ci moo ci lool réy na ci Abbas Mbàkke lool kon fii teeloon naa doy la Cheikh Mamadou Mourtada mi nga xamante ni bii moo daal taxawu kilifa yi fi daan bàyyi ko moo jox ndigal Cheikh Mountakha Mbacké wala ba ñu jëmale yoo xamante ni ak taalibe ku fi mas a nekk Serigne Touba moo xam ña doonoon ndeysaan الله يكوبا إلى رموتك Serigne Khalid mu borom Daaru Muxti moo egsi noonu ak Serigne dañuy cere ak sëb jaxasoo ca baawoon seen mbir jiitu ñi jiitu ñaawoon la Serigne Moussa Ka waxoon rek. wallaay wallaay wallaay sang bi nee na mbégteem rëy na lool. Cheikh Mountakha nee nañ bu sëriñ Basiru teewee ak sëriñ Cheikh Assou Faye ak sëriñ Khalid euh, mel na ni Daaru Muhti gépp teew nañu kon li ñu ñaan rek mbégum sëriñ Touba moom it di sëriñ Basiru yal na jaar ci Cheikh Mountakha ba tasaaroo tey ci dëkk bi ba fi jóge rek ñu xam ni mbég ñëw na tey ci dëkk bi waaye ñu itam dañuy ñaan sëñ Basiru am na nee na dafa am ku mas a ñëw njaarim ni sëñ bi ci bokk na gi Serigne Touba ñu yàgg fi lool te léegi incha allah lépp lu mu bëgg a mbokk yi mbégtee gi nii tey ba ñu ñëw tey ni Serigne Touba ñëw na ci eh, dëkk bi kooku ndeysaan nag eh, Serigne Bassirou Anta Niang moom borom Daaru Muxti moo egsi noonu di nuyu eh, Serigne bi lool ci rëy na ci waa Daaru Muxti lool rëy Güzel. Bunu diyeceğim. jaloon naa doy njabootu Serigne Touba la Cheikh Mamadou Mourtada mi nga xamante ni bii moo daal taxawu kilifa yi fi daan bàyyi ko moo jox ndigal Cheikh Mountakha Mbacké yàlla na fi lool tam ànd yàgg fi lool tam ànd yoo xamante ni ak taalibe ku fi mas a nekk Serigne Touba moo xam ña doonoon ndeysaan ndeysaan wallahi ku bàyyi daal mu ci xel si Xaalit mu borom Daaru Muxti mooy egsi noonu euh, Daaru Muxti ak euh, njabootuk sëriñ Basiiru ndeysaan dañuy cereeg sa jaxasoo ca baawoon Euh, seen mbir la jiitu ñi jiitu ñaawoon la Serigne Moussa Ka waxoon rek. wallaay wallaay wallaay sang bi nee na mbégteem rëy na lool. Euh, Cheikh Mountakha nee nañ bu sëriñ Bassirou teewee ak sëñ Cheikh Assou Faye ak sëñ Khalid mel na ni moo Muhti gépp teew nañu kon li ñu ñaan rek mbégum sëriñ Touba moom it di sëriñ Bassirou yal na jaar ci Cheikh Mountakha ba tasaaroo tey ci dëkk bi ba bu fi jóge rek ñu xam ni mbég ñëw na tey ci dëkk bi waaye ñun itam dañuy ñaan euh, sëñ Bassirou Abdou Khoudoss nee na dafa am ku mas a ñëw njaarim ni sëñ bi ci bëkk na ni Touba ñu yàgg fi lool te léegi incha allah lépp lu mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba yàlla ko liggéey ci sagoom Serigne Abbas Mbacke ñoom a liggéeyal ci yàlla na ko liggéey ci sagoom euh, kon daal euh, mbokk yi mbégte nii tey euh, ba ñu ñëw tey ni Serigne Touba ñëw na ci dëkk bi kooku ndeysaan Serigne Bassirou Anta Niang moom borom Daaru Muxti moo egsi noonu di nuyu euh, Serigne bi lool ci wér leen di nuyu Mbacke réy na ci waa Daaru Muxti lool réy na ci Serigne Abbas Mbacke lool kon fii jaloon naa doy njabootu Serigne Touba la Cheikh Mamadou Mourtada mi nga xamante ni bii moo daal taxawu kilifa yi fi daan bàyyi ko moo jox ndigal Cheikh Mountakha Mbacké wala ba ñu jëmale ni yoo xamante ni ak taalibe ku fi mas a nekk Serigne Touba moo xam ña doonoon ndeysaan

dañuy cere ak sëba jaxasoo ca baawoon seen mbir jiitu ñi jiitu ñaawoon la Serigne Moussa Ka waxoon rek. wallaay wallaay wallaay sang bi nee na mbégteem rëy na lool. Cheikh Mountakha nee nañ bu sëriñ Basiru teewee ak sëñ Cheikh Assou Faye ak sëñ Khalid euh, mel na ni Daaru Muhti gépp teew nañu kon li ñu ñaan rek mbégum sëriñ Touba moom it di sëriñ Basiru yal na jaar ci Cheikh Mountakha ba tasaaroo tey ci dëkk bi ba fi jóge rek ñu xam ni mbég ñëw na tey ci dëkk bi waaye ñu itam dañuy ñaan euh, sëñ Basiru am na nee dafa a ñëw njaarim ni bi ci bëkk na bi